bismillaahi rahmaani a asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu ñu ngi ziare suñu mbokk ñu ngi ji suñu mbokk taalibe yi fi teew yëpp waaye jiital bi nuyoo beeg ziar bi suñu jëriñ suñu kilifa sëñ Habib ak sëñ kilifa yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi yëpp euh, di sant yàlla bu baax yàlla boole ak ñoom waaye di bu baax ci liggéey bu bi nga xam ne dañ ko ànd ak kilifa yi te ngeen nekk kilifa yoo xam ne waxuñu fuñ gestoo gis leen waaye toujours buñ xoolee dañ leen di seen ngeen nekk ci suñ kanam nangu ay ca waaxu loolu kon tax na ba lépp loo xam ne def nañ ko rek dañ koy sant yàlla waaye dañ leen koy sant yéen tamit ngir seen taxawaay seen pasteef dinaaw boo xamee ne nag euh, soxna Ndey Diop ak équipe bi àndaloon def nañ liggéey bu am solo comme nanu mu jox dem di jëli yére yi di ko collecté ñoom yëpp ñu di ko indi fii euh, dajale nañ lépp buñ ko dajalee ba xayma ko nag donte kon am na nag ñu bari ñoo xam ne ak seeguñ seenu liggéey yi tamit xaymaaguñ ko waaye li nga xam ne fi ñuy wax yéen tey jii moo fi jot a teew ñu xayma ko ba fas yéene koo séddale euh, nii lañ ko fas yéene doxale ndax liñ fi dajale lépp ci yére dañ doon wut ay mbuus yu weex sol ko ci ginnaaw buñ ko ambalee ci ay emballage yu mucc ay trier ko ba nga xam ne yére bu ci nit jot mën nga ko sol dem ci xew waaye mën nga ko sol dem tamit jullikaay wala fu la yooyu lañ dajale nag def ko ci emballage wërbati ko boolewaat ko ci ay mbuus yu mag mbuus yu mag yooyu nag lu mu néew néew mbuus bu nekk def nañ ca fukki am na ci yoo xam ne bu ci ne am na peeru dàll am na ci yoo xam ne am na peeru dàll ak kol am na ci yoo xam ne am na ay takkaay ci xam ne moo fi ñëw lim bi nga xam ne moom lañ ci dajale ci mbuus nag mu ngi toll ci 3331 pièces yoo xam ne ay mbuus la yoo xam ne mbuus bu nekk def na 10 yére lu mu néew néew maanaam bourse bu nekk def nañ ci lu mu néew néew 10 yére loolu nag bu ñu dajalee bourse yi mu ngi nekk 3231 bourse bi ñu ko xayma bu war a nekk ci par pièce 32310 32310 pièces yoo xam ne emballé nañ ko ba pare oto yi sarse nañ am na yeneen oto yu ñëw te buñ noppee dañ koy séddale ni ko baaxoo séddale ginnaaw buñ ci amee expérience ci at mu njëkk ma nekkul séddale boo xam ne ñi ci bokk yi dëppoo dañ koy nàbb nit ñi di daw di ci topp ak ñu koy sànni waaye dañ dañoo fas yéenee topp 3030 332 31 kër yoo xam ne kër bu nekk danañ ci dugg defe naa leer na 3332 kër ñetti junniy kër ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn ci ay kër yoo xam ne kër gu ne danañ fa dugg dugal fa mbuusug yére bu def lu mu néew néew fukki yére am na yérey góor am na yérey jigéen am na yérey xale am na tamit ay takkaay bu fekkee dañoo ñëw ci détail li nga xam ne moo fi nekk ci yérey góor ak yérey xale yi ak takkaay yi am na ay drop lu toll ci 59 drop mi ngi ci biir am na tamit ay rido lu toll ci 28 rideau am na ci am na ci tamit yérey góor yi mu ngi toll ci 906 yére yérey góor yi waaye col yi lépp mi ngi toll ci deux cent quarante cinq col muy col yi soxna yi euh, ay dàll am nañ ci lu toll ci cinq cent quatre vingt quinze dàll am nañ tamit lu toll ci euh, yére yi nga xam ne kenn ñëwagu ko ci li fi daje ci liñ konteegoon am nañ ci cinq cent quatre vingt dix sept yoo xam ne kenn ñëwagu ko maam ñuy fàttali tamit ne jëndoon nañ ab lu toll ci deux millions cent mille yoo xam ne dañ ko jëndewoon ay pièces yu bees. ñaw la ko def ko ay ñawi xale ñaw yoo xam ne yu dëppoo dëkk bi la waaye yu dëppoog colub dëkk bi muy xale yu góor ak yu jigéen loolu lim bii ma wax nag bokkut ci loolu valeur 2 millions cent yooyu ñu jëndoon lim bii ma lim bokku ci te loolu yëpp yëre xale la yoo xam ne yu ñawoon ñu def ko ñaw bu dëppoo ak ñaw euh, dëkk bi waaye colub dëkk bi bokkut ci lim boobu euh, li nga xam ne bokk na ci li fi teew ci yëre xale nag lépp buñ ko tataalee tamit dem na ci 1130 pièces ci yëre xale lii daal collecté nañ ko dajale nañ ko li nga xam ne moom la ñuy xaar muy lu ne ci biir te tureeguñ ko sunu mbokk yi nga xam ne ñooy waa dakaar ak seeguñ waa Kayaar ak seeguñ waa euh, Njaareem ak seeguñ ak mbokk yu baree baree bari ñu ngi leen di xaar ci estimation ci liñ jot a ci ay éco ci li ne moom lañ yor ci ñi wax ne ñi ngi ñëw buñ ko xaymaa daal lu mu néew néew 40 000 pièces war nañ koo mën a am ren day teg waaye du manqué loolu nag xam nañ ne yokkute la waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax di sant suñu jëwriñ yi nga xam ne moom lañ àndal wala fi ku yokkul yaa waaye kenn ku ne xam ne ne sëñ Mourtala moom bi mu jëlee social ak tey bis bu xëyee day yokk li ko ko may nag ñu ngi ko koy sant di ko gërëm ndax daa ànd ak mbooloo mi waaye ñëw leen ñu dem la wax saa su ne ma nga ca kanam di soññee du guddi du naaj waxtu wu nekk boo demee ci terrain bi danga ko fa fekk ba kenn ku nekk foo toll da ngay xeeb sa pas-pas ngir moom ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool tawér ak kilifaam yi nga xam ne ñoo ko jiital suñ ci tuddee sëñ Abdou Fata ak sëñ Abdou bi muy toog rek yem foofu nga xam ne doy waaye sant nañ ko ñu ñu ànd ak moom commission bi ndax ànd nañoo moom jiital ko waaye moo ñu wër ba ci jiital ñu di ñu soññ fu ñu toll nag di ñu yokk pas-pas fu ñu toll waaye ñu ngi jaajëfal ñu seqal liggéey bi yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn ndax bu ngeen xoolee xam ne lii liggéeyu mbooloo la bis bii nii mu mel it mbooleen ci kanam kenn des commission amul tey amul kenn ku bokk fenn lépp ñëpp social lañ tey ñëpp àndandoo nañ taxaw ne loolu nag bokk na ci fooru Tuubaa ci kanam ñuy sant yàlla bu baax di sant sëriñ bi di jégalu ci kàddu yi tey bàyyi kilifa yi ñu motte li nga xam ne moo ci des yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi wa salla abada ala lasi bihi lana huda bada sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi sawina wa alwali an kalami rashida wa murshida wa fikrati nahwi wa xalmi rashida assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen suñu mbokk yi jullit yi suñu mbokk taalibe yi ñu ngi leen te di leen siyaar te bi ak nuyoo bi sëñ Abibullahi Mbàkke mu Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy jëwriñu Tuubaa ci kanam di siyaare suñu kilifa yi nga xam ne nii jamono ji daana am nañ ñoom ci barab bi te tey mu fekk leen ñu xaw a sori bu ñu tuddee sëriñ alaaji sëriñ tàkko mu Cheikh Modou Fadal ak sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ bi dana mën a yóbbaale mboolem kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ci yenn yitte di nuyu bu baax kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew buñ ci tuddee sëriñ Cheikh Ma Mbacke du yool yi ak sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ jiiri mën a yóbbaale mboolem kilifa yi teew nuyu baax suñu mbokk taalibe yi ci njiital président sëñ Mafari Ndiaye président ak sëñ Modou Sow trésorier euh, général Touba ak sëñ mboolem ñi fi teew ñëpp rek xëy na bu ñu bi mën nañoo bañ a matal di nuyu mboolem soxna yëpp fi jiital soxna Bintu Mbàkke mu sëñ Abibu ak mboolem soxna yi Touba yëpp fi ñu mën a nekk di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoo ci biir dëkk bi muy soxna yi nekk ci biir dëkk bi ak mboolem soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci département yi ak ci région yi ak mbooleem soxna yi nga xam ne ñoom ci bitim réew ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di sant bu baax mbooleem waa Touba Ca Kanam ñëpp rek fu ñu mën a nekk ñi féete ci biir réew mi ak ñi féete bi yëpp ndax fu ñu mën a àgg ci liggéey bi rek ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax ñu àgg fa kon ñu ngi sant ñëpp di sant waa Touba Ca Kanam yëpp bàyyiwuñu kenn waaye nag di sant bu baax commission bi nga xam ne ni ñoom lañ seqal liggéey bi ñu koy wax commission sociale te mooy banqaas bi nga xam ne nii moom la Touba Ca Kanam farale ngir muy taxawu ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir dëkk bi ndax liggéeyu Touba Ca Kanam ñaar la bi dëkk bi ak ñi dëkke dëkk bi jëmmi dëkk bi mooy ñaar téeméer yi ñuy dajale par weer di ko defaree bi dëkk bi moom ngeen gis ci assainissement yeeg éclairage public santé ak yu ni mel ñi dëkkee dëkk bi nag mooy sociale bi ñu bàyyi xel ci ne ab jaayante la ab jaayante la boo xam ne nii ku ci nekk yaay seet la nga man nga di ko ci def di tàmbalee ci dërëm ba la ko gën a kawe comme ni ngeen gisee yére yi rek ni ñu dajalee yére yi rek mooy social yére yi jékki-jékku nekk waaye soxna see dafa dajale ay yére soxna see dajale yére sëñ bee dajale yére ñu boole yére yi yëpp indi ko mooy lim bi nga xam ne moom la sëñ bay see doon doon wax li social di dépassé tamit di ko taxawoo nit ñi noonu rek lay demee sëñ Abibu mi am na lu mu weer wu nekk mu di ko joxe ci social bi yeneen kilifa yi tamit noonu lañuy def sama classe gi tamit ku ci nekk la nga nga def ko la ñuy dajale buñ yóbbu ci barab bu tedd bi nga xam ne moo taxoon a ju commission bi buñ ko fa yóbbu ba noppi la la fa desee moom la ñuy jël di ci jàppale suñu bokk taalibe yi nga xam ne ñoom lañ dëkkalool dëkk bi kon ñu bàyyi xel ci ne social bi doonut xaalis bu kaas boo xam ne dafa dafa dafa teew waaye lu ñuy dajale ci suñu biir la ba léegi itam képp koo xam ne dafa soxla ci social Touba Ca Kanam ñu bari xay na dañuy jàppale ne suñu Abibu moo jiit la rek ñu ne nañ dem ci suñu Abibu benn dërëmu Touba Kanam boo xam ne suñu Abibu moo ko yor amul suñu mën laa may téeméeru Touba ca kanam loolu tamit ñu ngi koy leeralaale man mii nga xam ne ñu man mën dénk ni social bi itam lépp loo xam ne maa ko jox nit ki loxoog loxo loolu man la léeg-léeg tamit jamono jàpp ma ko ni muy jàppee ñëpp damay sonn loolu léeg-léeg kon ñu xam ne social bi xaalis bu nekk ci ay poos nit ndax bu fekkoon ne dafa nekk suñ poos képp koo xam ne dégg nañ soxlaam soxlaam daanoo ñu faj ko waaye lenn li suñu borom rek moo ko man te suñu borom tamit xëy na yaatalut wërsëg bi jox ku nekk la ko doy ndax wala basatallahu risqa li ibaadihi la ba xaw fil ard kon ñu xamee ko noonu suñu yéene suñu pas-pas mooy buñ sañoon képp ku nekk ci dëkk bi da suñu abi bu waxoon ci kanamu Cheikh Mamadou Mountakha sa dépense su kër ñoo la koy yoral waaye nag dafa jaam bëgg la man waaye suñu borom nag mooy dogal kon ñu xam ne social bi doonul xaalis boo xam ne ni dafa teew nekk ci loxo nga xam ne boo ñëwee rek mën naa tibb may la ci ndax Touba Ca Kanam ñoom dañoo wax ne laaj lu am def ko fu ñu xam léegi bu fekkee ne man xaalis bi man maa ko yor ci sama ji ko joxe loolu moom tuddatul laaj ñu am jox fu ñu xam waaye ni muy tudd kon mooy laaj lañ man jox ko ku la neex kon benn dërëmu social boo xam ne ci man la nekk amul képp koo xam ne dafa soxla ci social bi tey du soxla woo nga may woo man wala ngay woo seen bi wala ngay woo yeneen kilifa yi Touba Kanam bi di leen sonal Touba Kanam seen biir dañ koo nos yoon wi mooy da ngay dem ci seen Touba Ca Kanam bi te yóbbaale lii firndeel ne li nga wax wér na te booy dem tamit nga jàpp ne nii la sa soxla ñore nii mu mettee am na ñu la mett gën a mettile mën naa am jiitu la jiitu na lay liñ lay jox itam mën naa am nga fekk ko fa waaye mën naa am tamit doo fa fekk benn dërëm ndax ñi joxe ñiy laaj da leen ëpp kon ñu xamee ko noonu ñun ñëpp ba fu ñu jugee fii rek ñu xamee noonu noonu lay noonu noonu lay tëdd lii ñu amoon yéene itam joxe ko ci tabaski gi ñaari mbir la wolof yi dañuy wax ne xar ak xartum xartum yi ci lañ nekk nii mooy suñu bokk taalib yi am na ñoo xam ne yàlla mën lool na leen ñu mën a yëkkati ay yëre jënd yu yees waaye am na ñoo xam ne nii suñu borom mëndoowu leen ko te ñun ñëpp taalibe sëñ Tuubaa lañ nekk ci dëkk bi di sëñ bi doo nga lañ yaakaar kon nag li li war ñi nga xam ne mooy mooy ñu man mooy ñu jéem a jël ci liñ man ñoom jàppale ci ñi mënul bu ko ñëpp defee ci wet gu nekk rek ñëpp danañ mën a am lañ bëgg moo waraloon ñu woote ab jaayante boo xam ne nii képp koo xam ne nii mën ngaa indi yére yu yees yoo xam ne nii ku la ko joxoon nga man koo sol jullee ji ko nga indi ko ndax lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun suñu borom nee na du ngeen jot du ngeen am lu baax mukk batee da ngeen a jël la ngeen gën a bëgg ngeen dundale ko ci yoon yàlla te wa maa tunfiqu min shay'in fa inna llaaha bihi aliim boo fi indee yére yoo xam ne ni jëgut ñun buñ ko xamul tamit suñu borom xam na te suñu borom ku nekk sa jëf rek la lay fay kon loolu moo waral ñu doon taxawu suñu bokk taalibe yi di sant bu baax association tailleur ci jëw jiital sëñ Bay ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko ci doon jàppale ak association séeréer yi nekk Mbàkke jëndoon nañu ay tiise moom la suñu bay si si sa doon wax léegi lu tollu ci ñaari mili ñaari million ak lu topp ñoom ñu ñawal ñu ko jaayante ko ci lu du ñu leen ci fay benn dërëm loolu nag bu fekkoon ne ñu dëkk ci dëkk bi yëpp am ay métier bu Touba Ca Kanam soxlaa la nga man da koy jaayante jàpp ne li Touba Ca Kanam li war Touba Ca Kanam ci dëkk bi moo la war su boobaa jàmbat yi ñu jàmbat yëpp waxuma dana jeex waaye man naa wàññeeku kon ñin am yéenee jox ci ay kër sëñ Mbaye lim na ko lekk ëpp na ñetti junni yi kër yoo xam ne fas nañ fa yére dugg su noppee fi incha allah liñ am ci yére itam ëpp na ñeent fukki yére ci yi nga xam ne dañ koo ñaw yin ñëwut sëñ bay wax na ne liñ ci am ëpp na juróomi téeméeri yére plus nag takkaay yeeg koddaay yeeg yu di dem loolu mooy xartum bi li jëm ci xar mi ba léegi Touba Ca Kanam joxewut ay xar affiche boobu ngeen gis ci tablo bi li muy tekkantal mooy mbir mooy dënmal da ngay def luy wane ne lii lañ cey lañ cey joxe gis nañ ne ñiy def ay affiche yëpp buñ demee ci koor dañ cey dessiné tàndarma loolu mooy wane ne kon koor la ñuy wax buñ demee ci màggal dangay gis ñu dessiné fa aw nag wala xar wala aw ak giléem nga xam ne màggal la ñuy wax tabaski tamit li koy symboliser mooy am xar waaye Touba Ca Kanam joxe wut am xar waaye lu mën a dem cim xar lay joxe li mën a dem cim xar tamit jamono jii ñuy waxe ni man na maanaam képp koo xam ne jotuñu waroon a bind ñoo xam ne suñu borom moo séddale te li ñuy wax olof di wax naan daanu dafa dajut suuf buñ sañoon waa dëkk bépp la ñuy jox waaye nag mënuñoo jox waa dëkk bépp am nañ yéene ji nag kon képp koo xam ne jotuñu waroon a bind kon dañuy muñal rek ba beneen yoon liñ bindagun ci ay nit ngir bëgg leen a jox juróom-ñeenti téeméeri nit la ak ñeent fukk ak benn ña nekk ca liste ba di xaar nga xam ne ñoom buñ amee li ñuy bëgg danañ leen ci mën a boole ëpp na juróom-ñeent fukki nit ak benn 91 personnes ñooñu nag liñ leen di jox doonul lu fi teew nii waaye lu ñu wuti la kon yéen ñii teew sax koo ci man da daal di dugal ci compte social ba mu yor ndax fi mu toll nii pour ñu satisfaire nit ñi ñi ma wax ñe li ma wax léegi ne ñoom ñoo bind ba noppi ngir ñu war leen a jox li ñu leen war a jox war nañoo am 33 millions 150. numéro social fanweeri million ak ñett ak fanweeri junni lañ war a am ngir mën a faj bëgg-bëgg yi. ñooñu ñu wax te fi mu toll nii may waxee nii li ñu amagun ci xaalis matagut fukki million ak juróom matagut 15 million kon nit ki li nga yaanu boo ko attund doo jëlaat da leen di ko ca teg kon tamit ñu xamee ko noonu ki ci bëgg a barkeelu nag tàmbalee ko ci man mi ndax ñun ñëpp ku ci nekk mën nga dara nga dugal ko ci 77 914 26 68 wala nga jox ko koo wóolu ci Touba Ca Kanam yóbbu la ko ci commission sociale kon loolu lañ ci bëggoon a leeral ci wàllu boobu gannaaw loolu itam li ñu def lii xalaat bi mu ngi bàyyi ko woon ci kenn ci soxna yi nekkoon ci commission sociale muy soxna Maam Jaane ay dara ndax liggéeyu Touba Ca Kanam du kenn waaye liggéeyu mbooloo la yàlla def na ban at si fii di ko def ay ati at ñu ngi ñaan suñu borom barkeel lépp di ko def tamit ci dëkk boo xam ne nii lu baax fépp la baaxee waaye dégg naa sëñ Moussa am sëñ Abdou Khadir mu ne sëñ Modou Moussa waxoon na sëñ Abdou Khadir la lu baax fépp la baaxee waaye Touba la gën a sakkane moo ëpp solo waaye nañ xam ne tamit kon safaan bi tey Tuubaa a gën a bone maanaam mooy yàlla fu ne la bone waaye Tuubaa la gën a bone kon moo tax ñu tàmm ko ci defe ko ci biir dëkk bi bis yëpp itam la baaxee waaye defe ko ci fukki fan yi nga xam ne moo njëkk ci tabaski muy muy li alxuraan bi wax wala yàlla na xasul bis yi nga xam ne nii jëf ju baax fépp la baaxee waaye def ko ci bis yi moo gën moo tax tamit ñu taamu ko ci bis bii defe ko ci dëkk bii kon loolu rek lañ bëggoon a leeral di sant mboolem koo xam ne dugaloon na ci sa loxo di wax ne tamit lu fii nit ñaa ngi joxe ñuy gën a yokk bu nit ñi joxe woon lu ëpp 100 millions ñi fi nekk ñëpp dañ leen yokkaat ci liste ba kon noonu la social bi doxe waaye social bi du xaalis bi du fa tege noonu kon ñu ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ képp ku ñu sañ a di sant waa réew mi di sant waa bitim réew gannaaw loolu itam ñi nga xam ne ni ñoo ma féete ndaw wala ñu tolloog man ay ñu gën a bàyyi xel bu baax ci yi nga xam ne nii suñu kilifa yi ñu ngi koy santaane rawatina Cheikh mu Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ci li muy santaane ci dëkk bi ñu di ko ci jàppale te xam ne dëkk bi sëñ Touba ji boppam bi muy ci dëkk bi dëkk bi dañuy dañuy gàddaay ñëw fi waaye kenn du tuxu ñëw fi tuxu mooy nga jógee sa dëkk ñu tegal la ab oto nga yenn ci sa bagage yi nga amoon bu fekkee ne fekk na nga daan def jëf yu dul noona nga indaale bagage yooyu ci dëkk bi boo ñëwee indaale fi sa jikko di def na nga daan def ci sa dëkk yooyee loolu mooy tuxu gàddaay nag mooy danga fay bàyyi lépp loo xam ne nii islam gërëmu ko sëñ bi gërëmu ko nga bàyyi ko ca dëkk yooyu te boo ñëwee ci dëkk bi nag nga jéem a fexe ba li ihya i sunnati yi gi sëñ Tuubaa waxoon fii dëkk bi nga jéem caa gën a góorgóorlu kon sëñ bi dëkk bi daa am lu mu fi bëgg nañ ko ci jàppale bu baax a baax sëñ Muntaxaa nag wax la man muy laabiire ñu moytu ñu waaye sëñ Tuubaa ci boppam nag moom dànkaafu na mboolem képp koo xam ne da fiy def ab safaan wal tax mi daari yaanil fi jóori wal fisqi wal baatili fi dumuri daa wax ne suñu boroom na na na nga ko na ko aaral ñooñu maay na na nga leen na nga leen na ma dàqal ñooñu la wax bu maskani sallim min al furaa mu jël min la laa laataa mu ñaan am ndox mu bari ji dafa ñaan suñu borom musal ko ci kàccoor yépp kon dëkk bi moom lu mu néew néew at xam nañ ne nekkee fi li la neex di ko defee li la neex bu màggat fi am lépp loolu mu bëriwul lu ma koy dégg kon li nga moom ngay def di ci am ndam di juyoom ndigali sëñ bi wala ngay mooy yàlla ci dëkk bi ba noppi say xéewal di gën a jàppandi nga yaakaar ne loolu mooy ndam déedéet sanastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun la picc boo koy bëggee jàpp doo jékki-jékki rek daw song da di jël pepp di jël ndox di ko suyal muy ñëw te fekk boobu da nga ko bëgg a jàpp nit tamit bu fekkee ne day def dara bu la yàlla naree ci yow ab safaan dalay gën a yokk wér di la gën a yokk aral nga nekk ci dëkk bi def la neex waaye da ngay xëy suba rek bis bi bis ñëw lépp dem kon dëkk bi du dëkk boo xam ne ni dañ fi toxu si waaye dëkk bu ni gàddaay ñëw la sëñ Tuubaa ci boppam min ba di maa xasaba bi taxal bi tax bi lii ñu ngi ko waxee sax eh, bi taxal lii eh, am na fu mu waxee ne eh, sa kartu fa li leen waxat saaxani li watanin bii nafa maa xaaxani waxaadani ilayhi bi taxalli min badi ma hasab bi taqalli maanaam sëñ Tuubaa ji boppam laataa mu ñu ci dëkk bi suñu borom da koo ci lépp loo xam ne nii ñun moom la ñuy jàppee lu dul noona waaye takkaayale ko booleen jikko yi nga xam ne moom la yàlla gërëm kon ginnaaw sëñ bi mag bi ci boppam moo noonu asamaan ñun ñi nga xam ne ñoom moom la tuddoo te nut nag la muy wuyoo daa war a nuru loola kon ñu gën a jàppale sëñ bi ci ci ci loolu di sant bu baax booleem presse bi ñu fi teew ñëpp di ko jaarale ci communication commission communication bu Touba Ca Kanam di leen jaajëfal bu baax a baax a baax tey sant mbooleem bokk taalibe yëpp rek xëy na am du ma bàyyi di sant soxna yi baax a baax ndax yére yi ñu fi am indi fii bu doon téeméeri yére la góor ñi juróomi yére lañ ci am kon li ci ëpp jigéen ñi la jataay bii boo xooloon ñi fi doon aw góor ak ñi fi doon aw jigéen ah, jigéen ñee fa fuuf noonu lañ gën a jàmbaaree ci commission sociale noonu lañ gën a jàmbaaree ci Touba Ca Kanam kon ñu leen di sant bu baax ñaan gaak la ca aju moom dañ koy bàyyee sëñ bi ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoo nekk ci département yeeg son yi ñi ñi ñëwoon ak ñëpp ak gone yi nga xam ne nii boobaa léegi ñooy ànd ak ci bi di yéegal ay bagage di yi nga xam ne ñoo doon defar bagage yi fii yëpp rek ñu ngi leen sant bu baax a baax ñun sant lañ man waaye nag si sëñ Tuubaa moo am seen fay yàlla nañu fayal boppam di gërëmaat jëpp rek oto bi doon suñu bëkk fi fuwaa yi ba xayal xam si fii tamaat yi bu ba aali yi wasax bi jëm yàq suba sax ba kulli muslimin mut yàq lii ñuy def itam xidmalil muslimina la te xidmalil muslimina mooy liggéeyal jullit yi sëñ Tuubaa wax na ca masaalik ne yow ma xiyam bis lañ ci teewee ban jël siraat gàtt ko ci diggu jaxama jaxanama te faw nga jaar ca ndax suñu borom moo moo wax ne faw nit ki jaar ca su boobaa buñ tollee ci xat-xat yooyu nga xam ne ku nekk sa bopp ngay tal day kaw ne ana ñu doon liggéeyal jullit yi ñu ne ñoo ngi nii ñu ne leen yéen bokk leen ci yii wax yéela in xadarat yowmul bari wa duriba siraat fawqa naari fawqa naari naada mudaadin ayna ahlu xidma lil muslimina fa ajaabu ajmahin fa yumaruuna li jinaani musrihin bi an yuqaalu lahum lahum dul janna bi xayri fitnati wa xayri fitna faxdimhum li wajhi faxdimhum turran li wajhi llahi faqat bila manni wala tanaani kon Sëñ Tuubaa moo joxe ndigal ngir ñuy ñuy liggéey julli di fu mën a nekk faxat nag bilaa turan faxat bilaa man bilaa wala tanaaji te ñu bañ cee boole nag gis suñu bopp wala ñu jàpp ne ki ñuy jariñ dañoo war a sant ndax laa laa tubtiloo sadaqaatikum bil manni wal asaa suñu borom ko santaane loolu moo waral ngeen gis Cheikh moom bu nu mu taxaa dimbali gi muy dimbali jullit day ba génn réew mi bu yàggul sax gis ngeen ko ci loolu nag li ko waral mooy loolu sëñ bi waxoon ne fax di moo turan li kon ñu ngi santaan ñëpp te jégalu